te génnewuñ leen Adji Sarr ba ci ba ci ñu koy défendre wax dëgg yàlla boo xoolee di nga xam ni ils ont même mal choisi ñu koy défendre parce que wax dëgg yàlla man mënu ma comprendre nit koo xam ni. merci beaucoup nit koo xam ni fa laay daanele. nit koo xam ni. nit koo xam ni non personnel amu ci. nit personnel amu ci parce que nit koo xam ni dañ koo jiiñ. dan koo jiiñ agression sexuelle. le document est là. muy maître El Hadj koo jiñ agression sexuelle en France ba tëj ko. dam mooy condamné. dam waa baal ma lire ko jàppee. dam non c'est important. dam c'est important ma lire ko. coupable coupable d'agression sexuelle. daam euh, euh, commis dame, le 21 dame, mars en France. loolu lañ ko loolu lañ loolu agression sexuelle kon nag agression sexuelle. waroon nañ à di défendre Ousmane di défendre Adji Sarr mi nga xam ne. di jël may naa ko may naa ko may naa ko mu lire. na lire non mais man. na lire na lire leer nañ. non non c'est des considérations. on est pas non c'est pas des considérations. non non moom waroon na war woon na nekk à l'aise di defar kenn. dañ ko dama ne la un violeur. un violeur ne peut être là pour di jox euh, joxe des euh, de morale. non dame non tu ne peux pas m'arrêter sur ce plateau. a tu ne peux être un violeur ba noppi imposer nit ñi mais lu mu bëgg. ka Ousmane Sonko mel ni moom loolu mënul nekk. Ousmane Sonko n'est pas toi. mais mais mais dame il faut qu'on s'écoute. dame dame Mbodj il faut qu'on s'écoute. non c'est pas inacceptable. il a bàyyi leen ko mu wax